kuréelu mbootaay gi ëmb liggéeykat yi féete ci l'hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba daal nañ daloo niki altine ji benn ambulance bu dëppook jamono loole nag dina yombalal li nga xamante ni nii moo di paj mi laata ñu yegsi ci bërëb bu fajukaay bi le tey ñu ñëw xool li nga xamante ni moo gën a nekk lu essentiel ci biir hôpital bi mën a jàppale hôpital bi mën a jàppale population mu yëkkati ambulance bu mel nii ñëpp ko gis mu ambulance bu mucc ayib mu jël ko teg ko ci loxoy amicable amicable bi war koo jël teg ko ci loxo directeur pour hôpital bi bénéficier wu ak population bi loolu dañ ci duñ ci def lu dul di ci kontaan. mu nekk jëf ji nga xamante ne nii ci bëtub directeur bi rafetlu na ko lool waaye itam xam ne ne li ni mel daal dina rek yombalal ñi nga xamee nii ñoo di fajkat yi seen liggéey. te li mu ñu jox yi itam dafa nekk loo xam ne lu ñu mënut ñàkk la ndaxte ambulance moom hôpital bu soxla na ko te dina tax ba maanaam fay ñëw. boo leen bëggee jëlee ci bërëb bi yóbbu leen ci bërëb bële loolu mën a nekk lu gaaw mën a nekk lu yomb kon ki am xalaat ba def ko wax dëgg yàlla mënuñu dul sant ko di ko gërëm. ci fa teewaloon jaraaf bu Touba daal di lu jëf ji nga xamante ni nii def nañu ko waaye itam liggéeyu amical bi. ambulance bi xam naa bu ñu ko doon xayma a jege million millions ndax am waaw vraiment ndax biñ euh, njëkkoon a wax doo tolloon na ci 12 millions yi ture waaye ñu demee yóbbuwaat ko defaraat ko mën nañu xayma ne jàpp na 20 millions 20 jëm 25 loolu nag lu am solo la. te eh, mu defal ko yàlla defal ko yonent bi defal ko sëñ Tuubaa kon su lay ñu ngi koy sant di ko gërëm. hôpital Matlaboul Fawzeyni bu tubaa di dalal saay su ne mbooloo mu takku yi ñëw jóge ci bërëb yu fasantikoo ngir xool ci seen wér gi yaram loolee moo waral ñu jàpp ne bile l'ambulance dox na waxtoom waaye itam dina tax ba ñi nga xam ni ñëw sekk wàllum paj mi ci bile bërëb bu fajukaay mën a rek def seen liggéey ci na mu gën a ñoŋee.